syndicat ñoo daal di boole seen doole ngir rek daal di yëglu seen bëgg-bëgg mooy jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkoonteel ay fan a ngi nii ngir rek ñu mun koo saafara ñu ëpp si ñoom daanaka jafe na ngir ñu daal di jot seen salaire. dañoo seetlu ne weer bii passé ak weer bi ya am retard criard ci suñu salaire yi et c'est pas normal donc salaire moom mooy dignité travailleur donc mënuñoo toll ci étape bi jóge euh, di war dem ci feet ak suñu mbokku euh, camarades chrétiens yi jógee ci feet te laaluñu salaire c'est pas normal bu ci tegu tamit mooy euh, euh, allocation fam familiale boobu travailleur moo ko moom moom moom seetlu nañu ne ñaari trimestre yëpp mais kenn fayu ko. ba tey rek ci jafe-jafe yooyu la yokk si ne bâtiment yu bëri daanaka amul ndox am yoo xamante ni nii dañoo nekk si ay yàqu-yàqu yu metti les accords de santé ministre bi. envoyé woon na yooyu mais jusqu'à présent tamit nag mettre ñu ko en œuvre au niveau des universités là surtout à Dakar voilà donc tamit am tamit yeneen euh, problème yoo xam ne da ci laxasu mooy ay euh, manque d'eau te xam nga ne ndox tamit dafa bokk ci dundin doomu aadama parce que mënoo nekk euh, Euh, doomu aadama ngay liggéeyee ci benn administration te amul ndox c'est pas possible ñu ngi interpellé ministre de l'enseignement supérieur bu bees bi lee ngir rek seen revendication yi mu mun cee bàyyi xel bu baax a baax banqaasu université personnel administratif la dañu am suñuy jafe-jafe yoo xam ne ministre bi di da ko war a xam te lu ñu koy ñaan maanaam mooy que bu toogee mu wooñ dañu war a waxtaan ak moom mu xam exactement ñun lan mooy suñu rôle ci biir université peut-être moom xamu ko mais lii war na mën a nekk effet de sonde pour moom ma mun bàyyi xel. Université Cheikh Anta Diop de Dakar daal di tàmbale njàng mi ay fan a ngi nii li ni mel étudiants yi daal di see beeg ak ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy personnel administratif bi.